ma ne ko ne macha allah macha allah alhamdulilahi rabil alamin noonu la ñoo dooree ma ne ko yéen ñëpp di leen nuyu bu baax a baax a baax ah di leen seet di leen ziar yéen ñëpp ku nekk foo nekk rek fekk naa la foo nekk ma jox la loxo a ma ne ko macha allah rabi ngeen gis nag ma toog ak tey suma jongo ma bu rafet bi macha allah rabi a ah. ma ne ko ne sax ah duma leen ko présenté parce que macha allah ma ne ko ne ñu bari xam nañ ko ah muy Oumy Thiam mu jëkkër mi ah suma chéri koko waaw macha allah fekk suma cousin yi jëkkër la ah macha allah rabbi ma ne ko ne tey na comme naka laa leen ko waxee woon rek wax naa leen ne tey moom ngeen excuse ma de parce que dafa am ñu nekk fii nii <laughs> soo leen déggee background noise gaay la waaw advice naa leen mais leen ne bàyyi leen lifin bi ambiance rek lañ bëgg waaye ñoom ñoom ñu tëjagum leen foofu noonu ñun ñu suñu waxtaan ma ne ko ne kam naka laa leen ko waxee woon ne tey nag spécial gis gëjoon na fi lu tax mu gëjoon fi moo nekk ñëpp xam nañ ko ma ne ko ne corona bi ak lockdown bi everything moo tax spécial géej am gës gëjoon fi waaye alhamdulilah bii moom wax dëgg neex yàlla dañ ko dafa nekkoon loo xam ne dañ ko doon depuis last year ñu ngi ko plan corona dañu stop wax dëgg neex yàlla ñuy plan corona dañu stop ñuy plan waaye alhamdulilah tey nag ba mu amee ak jàmm ak salaam ba ma nuyoo ba pare nag ma bàyyi suma Oumy Thiam mu rafet nii moom tamit mu nuyu suma ges yi ah, suma suma like suma audience yu baax yii nii tey moom laa am moom nag spécial guest bi mu am ñëw pour tooga de gis ngeen xam nga ne kii ko dugal si waañ bi muy tooga <laughs> man Marie Bachir chéri Coco may tooga ba mu baax jox ko mu lekka waaw loolu yëpp dinañ si ñëw waaye ma bàyyi ko moom tam mu nuyoo Oumy Thiam nuyu suma gars yu baax yu rafet yi ah. Um, jërëjëf si ganale bi asalaamaaleykum. Um, xanaa kontaan rek tey and Marie di la wax thank you so much for having me inviting me over so kontaan naa torop wax dëgg neex yàlla mm-hmm. so maa ngi wax alhamdulilah ñu àggale sago mm-hmm. incha allah ma ne ko macha allah dégg ngeen ma ne ko ne tey dal gën riche macha allah rabbi ah ma ko mu nuyoo noonu ma ne ko ne nag balaa ñoo door nag dara nag xam ngeen ne nag du ñëw toog fii nii nag suñ ne special guest su ma kaay xam ngeen a la special guest day demee tey nag mooy nekk season boo xam ne special guest tey mooy nekk am season finale of force am épisode lifin bi season bi ma ne ko ah demoon nañ ba am nañ ten épisode ten jaara suma cousin Ndexa Gamé moom moo nekkoon épisode 10 tey nag dañ ko dañ bëgg a close fii nii special guest bi ñu indi season 2 waaye ah emuñ foofu noonu de season 2 si bi su ñëwee dafaa ñëw ak beneen façon dafaa ñëw ak beneen ak beneen tour mooy naka umi ñu ne joŋe ci sa biir waañ waaw dina xumba de dina neex nit dina toj dina toj gaay rek gaay rek war a war naka la si biir waañam am nga na de torop parce que tooga dafa bari façon te jogee mun ngaa jogee fu nekk gi sa number one biir bi ahankee sa biir góor nga ah lay lay ah, la si la si la bokka soo léegi dañ la ñoo ah, am dinañ leen gisaa léegi nii waaye dañ bugg a dem man nag ma dem parce que wan leen naka laa defante suma special guest waaw dem wan leen lu kumba nag te neex axankay dem wan leen nag axankay naka laa duggee xam ngeen ne du ma leen waaw du leen bàyyi dara ba ma duggee ba pare ma ñëw nag wan leen naka laa duggee suma biir waañ te xoolal wan leen lan laa ko toggal ak ak naka laa tegee xam ngeen ne ba Bachir special guest am bii ni du ko du ko yombal mukk ah kon léegi ñu bàyyi leen ubbi ñu bàyyi gaay ñu su ko defee gaay dem gis naka lañ toggee ak naka lañ defee su ko defee nag suñu ñu ñëwaat bu leen puusu de te bu leen randu xaar leen ah kay neex ak ngeen ñëw waa suma gaay comme naka laa leen ko waxee rek ne leen tey nag suma special guest bi nag maa ngi ni di dem nag nduggi suma ceeb suma ceeb bu xonxa bu neex a neex a neex bu am um, ceebu jën bu xonxa bu am soos moom laa bëgg a def am suñu ranxa bi saab ak yooyu noonu yéen a ma gën a xam soo mu maa ngi nii nag si yoon di dem Dolstin ankañ xaar leen parce que tey dafa xala tuuti wa tay mom, affaire bi ma def suma roba ni rek bu dem ba ci souf ah so ni la def na ni la defé dostin ci suma trool yi soo mu góog mu fu nek nak ñu daw dem dostin mu ndugga ndugga gi wan leen marché dostin tamit parce que indilagu guma leen dostin waaw ni rek ma def ci si yep ci fon rek lañuy dox ah toga gu and ak fon waaw gu neex saf sap kon mu góog ma gis leen inshallah rabbi rabi dostin so kon fu nek nak duga na dostin ni Aksima camera Go. ma ngeen have bigger than this. You don't have any bigger than this one. léegi fu mu nekk pare naa nag fu mu nekk maa ngi ñibbi ma duggee bi demee si beneen side bi nga dama teel a ñëw soo teelee dafa day fekk ñu bari da nga ñëw jënd loo jënd rek am space bu mu ko def xaaral jënd popcorn asalaamaaleykum wa rahmatullahi suma gañ kon naka la len ko waxee rek gannaaw ma len nuyo ba ah comme tay nak mom wax dëgg na yalla special guest bu mena ne ko ne bu ndaanaanu la fee am bobu nonu ah sha allah bi di umi cham comme yena ko gina am ham introduce na suma bop wax len ne tay melen ne bi tay dina humba te dina dagan dina neex te dina am ambiance Wow. man Lila Wahman. la wax man sha allah rabbi ah kon mugo góob ne ko ne gis ngeen nak la bu def ceeb bu xonxa bu am jaga jaga jaga bi dafa nek tamit sosi jaga bu bu jeen bo xanga ba pare tamit dinañ am tamit suñu affaire yi nañ ma gina xam suñu bisa bak yoy nonu yeb dina neex dal ciep gu fata dal la bu galanga ah ñaanal leen ma nak affaire bi yëpp nag macha allah si possible sa faté nak ko gine way amul problème xara ma wax suma ingrédients ba pare gis ngeen suma jeen bii ngi ni ma won leen bama ko rof nak la ko rofé li ma koo gi rek ko tamit ma di ba si bu sap sap gi ma ko def fi pour def ko defat ko ni rek gis ngeen gis ngeen rof gi rof gi ngi ni safna na wax dëgg neex yalla ya yomba ba bugg de yomba affaire so mom la ko roofee si nii inshallah rabbi waaw yokku ma fa dara dama ko def fi rek pour bay ko fini rek si lifin bi gënna bi ndaw bi waye mom la use pour ñew rof nak ñu rof nak suñu jé suñu ah mu nga kon bu ñu ñëw waaye gis ngeen lol nonu gis ngeen jeen bi ma ko rof ba bax baax ñu yus suñ xam ko fi wit ba si rof bu neex bobu nonu mom lañ ko rofé mu ngi comme ni la ko xam ngeen ne man si brie moy suma favorite waaw sha allah suñ kër fi so mu ngóob ma arax ci tamit gis ngeen am am ka makrel parce que makrel dafa saf so rofuma sax yépp parce que xalé yi so am na yoo xam ne roofuma leen xale tax motax waaw so mu ngo gis ngeen ko ba pare yene ngi ni ma am tamit suma xaaral ma génnee clean film gitu, bi su ko defee ngeen mën ko du bu man tamit ma won len jeen bi naka la ko don defee bama ko dank ma dugal ko. mais ma ngi ni don defar am naka lañ ko defee sa am lifin bi jaga bi pour sauce bi wa jeen la ko defaree gis ngeen ngeen baram suma ya, loxo yee ngi set ma commencé won nako sa di dank so gis ngeen lima def moy dama jël makrel makrel bu fresh bi ma has ko bam set ma bahal ko bima ko baxalee ya, after ma génnee skin bi. safet ko ba mu baax léegi ma jël tamit suma spring onion ak tamit naka lañ ko dee sax ma def spring onion ma def tuuti laaj poobar ak tamit kaana bu jam moom laa wal nii together ak ma nokkase ko ko ak suma roof bi so moom laa ko mixé ak ma defa bread ngeen moom moom bread crumbs bee nekka nii mooy feeñ su ko defee pour bu mu mun a ah, lifina danka danka pour gis ngeen pour mu na neha neex danka waaw loxo yaa ngi seet nak wéj wéj wéj waaw gis ngeen maa ngi gum yi ora di gis ngeen gis ngeen gis ngeen tamit won naa leen la nak nak lan laa jël ma defar jën bi soo mu ngoog moom dafa nekk jaga dama ko fry gis ngeen maa ngi ko danka danka bu rafet te mu ngi xeeñ xeeñ gu neex macha allah rabbi ba loolu passé ya, ma am fii ni tamit suma ay yu sew ngeen maa ngi fi am suma am sweet pepper ma am fii ni suma am ñaam bi cassava am fi ñu am fi tamit suñ carottes kaane bu dija ah kaane bu sew bii nii am fi jaxatu am tamit suñ batanse ah am fi tamit suñ spring onions man sax gis ngeen de génneew ma sax yëpp waaw mel ne ko ne gis ngeen am fi tamit suñ spring onion na everything ñu am fi suñ maalo bi nii moom la ñoo def basmati rice man wax naa leen ne maalo bu maalo bu digga moom dama maalo bu sew kañ soo maalo bu sew dama ko bugga moom laa déggee naa togga soo ma am fii tamit lii suñ kaane gu sax bu neex gii nii la kaane mati jaañ bi ko mosagut demal nga mos ko kaane bii ah laa lii laa fii fii su ma am gaalik la man maa ko jël nii blend ko yëpp defar ko waaw di ko def si fridge bi si fridge bi si kaw soo gis ngeen ingredients yi ngi nii suñ seasoning salt bi nga xam ne moom moo ñëw gunge su lu nekk moom si wax naa leen su lu nekk nga ko mën a def macha allah ñu am fii tamit suñ chopped tomatoes suñ tamit am am naka tomato paste mooy tomato am naka nuñ ko dee ooyewaat saxati tomate loxati man dama parce que damaa toog a soos bi tam moo tax ma jënd bii ak bi bëgguma seet lu bari parce que moom soo bàyyit xel rek day a foroxal benn cin bu xonqa soo mugoo ma am tamit su ma am végéta bi algreda ñu am suñu xorom am suñu béy yëpp dinañ si jël soo mungoog soo ak tamit diwlin génneew ma ko fii waaye doo xam ngeen ne diwlin dina si war a bokk soo léegi suñu si yi ngi nii léegi nag comme kat wax dëgg neex yàlla ma leen ko defee rek maa ngi amoon ceeb si su am suma channel bi so da gis ne bii moom dinaa ko wane rek waaye du ma nekk di explain any like di explain so damaa nekk di leen wan naa leen wan process of naka laa koo toogee waa xam ngeen special guest bi daf dee yaay yanja macha allah so dama xalaat <laughs> li fi vidéo bi tuuti so dangaa gis ne am dinaa leen wan rek naka laa ko toogee ba starting mu jeex waa du ma nekk di stop di explain ak yooyu noonu parce que maa ngi amee benn ci boxam xa xëy na bu ma am rek amul soos si jaga bi jaga bi tam naa si sa naa si sànni sipa sipa incha allah rabbi sipa sipa bi moom gis bi gis mu boobu léegi ñëw nag door nag macha allah ceeb soko ko dang ko bëgg di tagga nan ko ceebu ay ceeb ay ceeb yow yaay ceeb su ko defee du la or <laughs> ceeb da nga am technique am depuis depuis depuis kañ ba léegi maa ngi koo tagga léegi léegi mën ko ne ah léegi léegi mën na ko ne ceebu jën penda naar ay waay ceebu jën penda naar waay bu ma def <laughs> di ko tagaal di ko jay ko defee mu ne huu kii tey dinaa dinaa egsi mhm. non la tooga yi legi. léegi nga dem ba ne yaa si ok yep correct mu ñew def lako way dang ko tagga diko ko système la système ngok le système la ko japp rek ci système bi la japp mu ngok legi fu mu nekk na ñu may ko mu bax tumbal na suma everything wa legi dañ ko may mu bax baxam rek yep jop yep jaxaso oh, jaxas mélanger ngok dafa melni dina ciép nak ci dipi kañ ba legi maa ko tagga suma rosé tagga suma defé ndox tagga suma ma tagga kep gi ceeb gi nga xamne lepp di gala gi nga xamne kim ko digalel nanan la <laughs> wa suma gars ah afé sé ngey ñew nank nank dé tagga gi la li mo li len wax rek hay légui fu nekk ak ngeen naka mu ngey baax waaw li mom dang ko lifin rek so féré mu nga ko décorer si rek décorer ko ko ci kaw kané bi so mu ñu ko def nank nank rek nangka. di bax nank nank wa suñ féré suñu sew nank waaw bañ mu tas ci ni tamit ñu seeti ko naka rek A green chilies bena spring onion ak tamit naa si def tamit sweet pepper as well ak garlic na ko fi def moom laay together su ma sipa sipa gii moom dama ko see sani rek su ma suub yéen rek pour rek highlight ko si kon ñu ñëw nak nokkos te gaay bala ko gis ngeen parce que nekk nag dafa na suñ ti di ngeen gis ne moo na after in the future dinaa indi something like this so gis ngeen defar naa aku maa ngi am suma oranges kiwi aku ko jënam hamang nga strawberries nga am grapes nga am cherries as well ñu amaat fii nii tamit suñ beneen bool as well def ini as well tamit gis ngeen lii yëpp special guest bi wow waaw special ya, guest bi daal muy close season one inshallah allah rabbi su ko defee nag ñu ubbiwaat season two boobu laaj leen ma nuñ ko tuddee jonge si sa biir waañ képp koo xam ne daal jonge nga jonge nga si sa biir waañ ñu war ah gisante Marie Bachir wan ñu naka nga jongee si sa biir waañ naka ngay defaree so bi mo nek close enough suñ season one special guest bi so season two di ibi, moo tax bi di xumba waaw moo tax di xumba so mu ngok mu ngi ni gis ngeen so dafa ne suñ fruit plata am nañ tamit suñ other things as well as time new dem dinañ leen wan waaw so mu ngok nii la <laughs> special guest rek ki di ñu wara a rek day nak man dina xumba dina am ambiance dina neex bu pusu pousu ta bu len randu tok len fo len tok rek ta setan <laughs> macha allah. jaare naa la bu bi aw ma ko woon nak nag ma ñëw nak indi nag spécialiste spécialiste bu ñaawul lii cam babe dama cam ah dëgg dawul baar lii ki ne koo tegal ci didi dëgg dawul baar ah léegi ma dem na indi nag Thank you. Gabriel. xoolal xoolal su fekkee Gaspard laa dimbale. ma ne ko ne ah macha allah rabbi gars yi ma ne ko ne xam naa ne kontaan ngeen waaw parce que man nag suma special guest bi kontaan na ma ne ko ne gis ngeen naka lañ duggee naka lañ duggee waaj naka lañ toggee naka lañ tegee. macha allah xarab ah ñu ànd si tamit ak suma am di jaama yooyu noonu macha allah ñëw rek nag tamit ne dañoo ñëw fekkee bis bi Oumy bëgg maa ñu teral rek. noo gisee ceeb bi hoppatelaw non ceeb bi rek. Mm-hmm. ceeb bi neex na ceeb bi njaga. ceeb bu xam-xam bu saaf. fu nekk nii yaa. mënatuma dara dama lekk bépp. dara laa munatu ah, macha allah dina ñaanal yàlla yàlla barkeel si li nga def nii amiin yaa rabbi yow borom xol bu rafet nga borom xol bu set nga wax dëgg neex yàlla parce que li ñu ko mën si Europe bi bariwut mm-hmm. definitely ñëw mm-hmm. indi ay nit dajale nit xam nga di toogaa ah, ka yëkka you know it's very very very um, appealing so i'm really happy i'm so you know um <laughs> you know <laughs> mashallah ma ne ko yow ma ne ko ne noonu la ma ko dañ ne spécial gi te wax dëgg neex yàlla xanaa ma dama wax ne képp koo ko kaay xanaa nag di nga ko jox nag mu ne ko kaay sax ku jaar sax ñëw sax war nga koo tegal lu lekka spécially ko spécially koo ne kaay mhm. macha allah rabbi ma ko ne ñu def noonu la waaye umbi nag ma ne ko yówéen ko fii képp koo xam ne rek jaar nañ fi foog naa fii nii nag ba spécial ges doore ba léegi ñaari nit rek laa am ñoom ñoo daay nag man ñoom ñoo ñu si des ñëpp ah. ñu si des ñëpp ñoom dañ sa biir waan bi foog nga jël non dama damaa ñëw ba sa damaa ñëw ba sa dëkka ah. non boobu xoolal. foog nga ñëw ba Watford. ma teral la rek. su ko defee ma wan li waaw waaw ma ne foog ma def. su ko defee ma nga ma ma ñëw na boobu na yow yaay tooga. amul problème nga toog a def yëpp. def say jaagar jaagar yi def suma jaagar jaagar yi. Ah, jéem laa woon fu ma mënee ma ne. Ah. waaw am na jigéen pire ne ñun. ay bala man say. <laughs> du ay foofu du ay foofu. ma ne ko ne yéen a gis loolu noonu yéen a dégg lu mu wax mu ne moom daal jonge sa biir waañ bi daal foog moom tamit na defante ñu wàññi moom tam naka la munee naka la moo jaagar ko ma ne ko macha allah ma ne ko ba loolu noonu yëpp passé ñu waxtaan xam nga ne lii moom final bit bi lii la day nekka suñu amee ambiance def yëpp foog ñu toog rek jàkkaaroo rek waxtaan ma ne ko waxtaan waxtaani àddina rek waxtaan waxtaani waañ waxtaan waxtaani jigéen waxtaan waaw just normal waxtaan rek waaw comme rek jàmm ko gën a xam ummi comme di la wax ne rek togga parce que dañ ne jox dañ ne dañ ne spécial guest bi affaire yi togga la man ci togga laay yëngu yow tey sama ma doon ñu fi naan describe al togga naka la togga war a mel tey. waaw first of all. Mm-hmm. jigéen. Mm-hmm. da war a set. Mm-hmm. loolu mooy number one. xeer ak xarañ. dafa important trop si waañ. fi nga commencé ak fi nga jeexale yëpp mhm. loolu yëpp mhm. da si war a bàyyi xel parce que loo xam ne la li nga jox nit mu soo dugal si biiram mhm. mu lekk ba suur so ni nga ko commencé mu mu rafet loolu la war a àggee àggee mu rafet te neex te saf. lii waaw loolu la loolu la man ma ah ba mu dàq naa loolu la. Mhm. wax de ak set gi. togg gi neex te sa am naka set ak yëpp macha allah rabbi waaw ma ne ko ne um yi wax dëgg neex yàlla ma ne ko ne xam nga suñ ne togg tamit dañ ne manage waaw comme ni ma ko dee waxee rek dama ko dee laaj ñu nekk tey ni mun na laa jox ne la ah par exemple xëy na tey ah tey de li ma am bariwul xëy na tey kër ni paan naa am te xëy na faral di ñu jalu ko noonu togga ko jigéen naka la mun a xa naka la a xam ne dina indi tey togga togga bu baax si xëy na benn 20 wala 10 pounds 10 pounds sax mun nga see togga dara waaw mooy xarañ bi rek waaw nit ki mun ngaa am sa benn 10 pounds togga lu baax mhm. lu sakkan mhm. waaw so man ni ma ko gisee rek mhm. mooy jigéen foog nga xarañ daal. Mm-hmm. mooy xarañ. manage rek manage mm-hmm. waaw. Mm-hmm. loo am daal bu ko xeeb waaw. manager rek benn ten pounds twenty pounds mën naa toogal ngeen nekk ba suur mhm. soo yëpp si fii la rek ni ngaa manager rek na ni fan xëy na comme su fekkee tey penuloo mu léegi-léegi ni dina dem jënd lu nekk jënd lii jënd li mu bari ba bugg dee xëy na nga togga ko si lu demee noonu duñ xam ni ñoo toogee exactement léegi-léegi sax gis ngeen ñii foog ma wax leen ne ñu aha ñu may ñu tuuti parce que ñu ngi seen volume mu ngi xaay mu ngi neex <laughs> waaw ma ne ko macha allah umi comme ni ma ko waxee rek ma ne ko ne ne xëj na su jëndee su su jëndut li am laay loo xam ne xëj na lu baree baree bare xëj na mu foog na su toggee sax du ne fekk sax yàlla xam ne ne léegi léegi ummi mun ngaa jënd man dama dee plan la rek hmm. plan la daal hmm. loolu la rek hmm. soo soo mënee plan rek di nga mun a manage man noonu laa ko gisee ah, so comme comme comme lu ñu wax léegi rek togga yëpp si mang la ak ak xarañ rek waaw macha allah mun am lu ndaw mhm. nga ñëw tooga ko mu bari ba bugg a dee barke barke waaw mooy yëpp dawoot barke waaw moo tax suñu maam yi dañ naan suñu yaay ne ñu ne barkeel moo gën bari lañ bari lañ man dama daan wax ah, comme nii dama def ne ma ne time boobu noonu comme suñ suñ maam yi wécc am time boobu fridge amut li fi amul. waaye ñoom niñ daan préserver seen lekkay sax léegi-léegi nga gis xëy na suñ reyee xar duñ am fuñ ko dugal waaye dañ ko daan weer waaw dañ ko daan jël xar bi weer ko am nuñ ko defee prise ko def ko comme lu mel ni ah, ah, si banta yaa ngeen bàyyeel su dañ dee ñëw di si dokk waaye mu am suñ la toogalee loolu dara mënu koo gën a ñàkk a mën a dafa ne ba pare barkeel ba bugg a dee wax dëgg macha allah mën na ko ne gars yi duñ xëy na tay boobu noonu Euh, like comme léegi jamono léegi nu mel ba nga xam ne jamono melu ko woon time boobu noonu. man ma fa ne yaaxa baa a parce que nit ñi amuñ lu ñoo managé waaw mm-hmm. suñ gisee lu bari rek mm-hmm. am na ñoo xam ne dañoo jaxasoo mm-hmm. mënuñoo manage lu bari understand nga suñ gisee lu bari rek yaaxa baa dee gën a bari soo daf dee baax nga plan ahead to mm-hmm. understand war a def li nga war a tooga mm-hmm. nga xam ne um, doo mm-hmm. loolu wax dëgg na yàlla loolu la sax macha allah parce que comme na ko xëyee rek xëy na léegi affaire yi bari sa buté ba nga xam ne yow doo xam sax lan ngaa def adi élève yi de soo paree yëpp dafa waste waaw macha allah xarabi kon nag mën na ko ne gis ngeen mooy li mu la ñu wax rek ba léegi sa affaire yi waañ waaw Umi Thiam tegi togga naka la war a mel ah xam nga togga dañ la ne togga day pare dem nga marché jóg suba teel def sa jaagari jaagari dem sa marché ndugga ndugga ah. sa jënd say ay yu baax mun na moo ñàkk a seer sax nga ah. jënd sa yu baax ñëw toog ah. togga sa togga pare xoolal gi boolee ko tamit xol bu ubbeeku nga koo togga togga xol bu set mhm. waaw togga gi neex nga mhm. pare demaat wécceeku ñëw war a war a teg teg bi daal teg bi daal <laughs> uh-huh. foofu gën a important uh-huh. soo paree daal li ngaa tooga tooga ba pare mhm. dem sangu ba set sol sa lu baax ñëw def sa jàgga jàggaar am sa bagage bu baax uh-huh. yaka uh-huh. teg sa table uh-huh. jël sa table ba nag dress ko nag ba mu rafet nag uh-huh. waaw teg sa bagage su ndaw yi jël sa añ wala sa reer ñëw jaagar jaagar jaar sa sa saal teg sa bu baax bu neex <laughs> rek def na alaaji as ñëw rek wala képp ku mën a ñëw <laughs> képp képp ku képp ku war a lekk xool fii dafaa ñëw rek xool ko sa exactly daf koo lekk léegi-léegi da nga koo teg sax doo ko bugg a lekk doo ko bugg a laal sax macha allah loolu la ñu wax présentation it's very important. no moom no matter what bul xeeb dara. waaw sa biir kee nga ko war a ma xam ne waaw noonu la lu nekk sa biir kee nga ko war a njëkkee. nga am gan ñàkk am am gan. exactly si sa biir kër si sa njaboot si sa mm-hmm. jëkkër. Mm-hmm. nga teg di présent lu baax. Mm-hmm. loolu rek doy wax dëgg na neexal na neex neexal na sëy. neexal na yëpp même su loolu a même su fekkee na sa góor dina bëgg di waxuma la bëgg rek. <laughs> يا ما قلها ما شاء ada ما لكم انا بريحنا ليجي ليجي صح ما يمشي دوب سهيد نسجي كاسا يو سوى war nga teglu xamne balan ko lek nga teglu rafet nga gis ko nga absolutely waaw definitely yow sa boppam parce que exactly man moom allah ah yow tam gis naa la wax dëgg ne yàlla ya. man damaa teg man kenn naa di kaas ma doom waaye uh-huh. damaa teg defar ba baax prison lu baax nga xam ne su ma toogee su ma gis ngeen suma spécial guest bi nii macha allah macha allah ah waaye lii la ma ne ko lii la waaye jigéen moom moom dangaa bari salañ salañ. ah am feem tuuti ah kay am feem si biir waay bi. a a a a foog naa a a moo number one waañ gi ah, biir bi biir bi very important foofu number one. <laughs> Why be lion yéen One guy number one Why number one. waaw biir gi loolu laa de mel ne biir gi daal lépp loo xam ne yaa ngi ko number one Wow, wax dëgg ne yàlla dafa war a nekk loo xam ne lu yànja la. absolument macha allah. <laughs> war a nekk lu yànja la waaw. nga toog fa nag allah mu neex ba dafa gis ngeen loolu noonu. ba loolu noonu nag passé umi. Mm-hmm. ñu laal tuuti rek si Covid bi passé Covid bi nii. mel na ko wax dëgg ne yàlla Covid bi mel na ko ne am na many disadvantages waaye am na tamit so many advantages absolutely understand na parce que li ma wax mooy comme yow mi nga xam ne tey yaa ngee liggéey mel a ko ne xëj na time boobu noonu li ma wax mooy xëj na time boobu li am naka liggéeykaay yi foogoon nañ ne liggéey danga war a dem nag liggéey si office waaw waaye gis nga with covid bii nii tax na ba xam nañ yu bari si technologie yu bari génn na lu nekk mën nga koo def léegi am naka lu nekk mën nga koo def virtual mhm. understand nga mhm. te understand nga wax dëgg neex yàlla xëy na soo ko defee am bañ ne nii nag dafa covid bi tëju bi tëju bi waaye covid tamit tax tax na mhm. ba ñu bari am nañ like like family time absolutely understand nga hmm. family time understand nga parce que xam nga xëy na time boobu noonu umi nit ñaa ngee liggéey xëy na comme suma jëkkër man xëy na par exemple man suma jëkkër mu ngee liggéey man maa ngee liggéey xëy na balaa ñoo gisantee hmm. understand nga xëy na time la hmm. xale ñu ngee dem school ak yooyu balaa ñu waaye xam nga covid bi kenn xul ne baax na de baaxut parce que loo xam ne ñëw na laalaa waxaal understand nga yóbbu bakkan yu baree baree bari yóbbu lu bari change àddina change change way of living waaye wax dëgg neex yàlla yow tey sa gis-gis yow loo foog loo loo like loo xam ne Covid bi na tax na ba understand nga yu bari defar na comme yu bari daal yaakaar na moom li mu yaay comme su ñëwee xëy na quality time family time ak ñun parce que ak ñun ak ñun suñu family yi yoo xam ne duñ ko daan mun a am espèce ñun nga xam ne ñoo dëkk si aw bi fii nii yow xam nga soo yow loolu noonu tey loo si mun a sànni rek waaw si Covid bi mhm. Marie xanaa mhm. di wax alhamdulilah mhm. parce que um, mënoon bokkal si ñoo xam ne tey. Ah, ñu Covid ñu Covid yóbbu bari na trop. anastanga si Europe bi fii nii. Mm-hmm. so di wax alhamdulilah. Mm-hmm. bu ñu yàlla mayee bakkeen anastanga ñu mun a fekkee yu bari. Ah, dëgg la comme ni ñu ñi nga xam ne ñu ngi xëy di dem. Mm-hmm. liggéey anastanga. di si yàlla parce que am ñu bari. Mhm. ñu si seen liggéey yaaxu. Ah, am ñu bari ñu si ñàkk seen liggéey. it's very very very difficult. understand mhm. financially mhm. affect na nit ñu baree bari bari bari. liggéeykaay yi sax small business yi sax ñu bari ñu affect. non very true it's very very. it's very sad very sad understand so di sant yàlla dal, ba pare. dafa gën a bring um, people together. together exactly understand nga family si. understand nga ñëpp ngi gën am time. understand. because soo ko bàyyi woon xel. Mm-hmm. before Covid bii nii. Mm-hmm. famille su bi ñu daan am time yi dara. ba pare xale yi suñu wàccee. ñu ngi seen game si ñu ngi seen playstation si seen téléphone si and all that. so mm-hmm. famille bi. kenn du mun a kenn du mun a so people yi I believe dañ gën mun a appreciate ante. exactly après you appreciate more. because luy xew si àddina bi because the world. went into a standstill I believe understand nga. so mu meloon ne loo xam ne daal. Mm-hmm. jaxase na àddina jaxase na boppi nit ñi jaxase na lu nekk. waaye yàlla. Mm-hmm. jàppale nañu jàppale nañu si mm-hmm. dimbale nañu suñu bari. ñu gën koo um, sante yàlla rek. non sant sante ko yàlla bu baax. ñun mi nga xam ne xam nga. yàlla mu ngi bàyyi suñu liggéey ba pare working from home bi tamit. digga la métti na métti na métti na trop because yaa ngee dem to another sort of thing moo xam ne. experience loo ko woon experience loo ko woon. Mm-hmm, mm-hmm. sakatuma this virtual. this virtual léegi mu crash doo am dara looy def. exactly mm-hmm, yeah. waaye tamit ñoo xam ne tamit. ñu ngi study. xam nga. exactly sort of problème boo xam ne it's really hard <laughs> no it was it was waaye ñu la fi yàlla wàccee ñu muñal ko yàlla loo xam ne dafa a while so we have to live with it man loolu uh, laa we just have to a moytu rek jël précautions yi mm-hmm. laay wax comme naka la ko ummi waxee rek ma ne ko ne képp koo xam ne rek covid bi laal na la ñu ngi laa masaw bu baax a baax a baax xëy na am na families yoo xam ne macha allah rabbi suñ mbokk bari nga nga xam ne xëj na turu covid bi la suñ mag yi macha allah xoola time boobu noonu Gambia umi saa yu duggee si media bi yaa ngi gis nit ñi ngi understand nga mm-hmm. ah, lu nekk loo xam ne lu métti na woon waa dégg na yaa lu métti métti waaye tamit ba léegi rek yàlla rek moom moo xam. Mhm. mun su ko fi neexoon Covid bi di fi stay this long. absolutely understand waaye ba léegi comme ñu ngi ko sant yàlla di masawu ñoo xam ne tamit xëy na seen liggéey si. leen wax di leen wax ne mm. yal na yàlla indi leneen lu génn. ñi nga xam ne tamit ñàkk nañ seen seen seen bakkan ñoo xam ne ñii seen yaay yi ñoom ñëpp ñu ngi la ñoo di jaale parce que tey su kenn man la ma dee wax ne Gambie ñëpp a bokk wala ñu su même su du Gambie sax. waaw soo képp koo xam ne am na naxaar rek ñëpp daanaka am nañ ko. am nañ ko waaw waaw soo mën a ko ne comme nakal ko umi waxee rek lii dafa nekk loo xam ne dafaa ñëw toog parce que dangaa xool fan yi rek. Mm. ñu ngi waxoon ne everything xool naka la kii si demee woon daan su nekk mu ngi ñëw op. mu ngi indi this delta variant. soo naka la ñoo def. kenn xamut soo mooy li wax rek. lu ñoo def mooy daal ñu stay like still now ñu nekk di use suñ précaution si. understand nga di moytu rek tamit te xam ne rek jël suñ vaccine si su fekkee ne. like am fil nga am fil nga ok pour jël ko. nga jël ko rek ñu lu des rek ñu bàyyi ko si loxo yàlla. like vaccine bi just jël leen ko rek. ñu am ñoo xam ne maa ngi dee ñooy wane. waaw <laughs> man de jël ko just take it. man de jël naa loolu la. precaution is is better than cure. so just just take it. yeah exactly loolu. parce que man ah, moo jël naa suma. wan waaw man jël naa wan. <laughs> man de jël naa ñaari yëpp wan. kon nag benn bi August laa ko am. August waaye fu mu nekk sax gars ñu ngi def ne ñu ngi ubbi parce que fu mu nekk gars dañu ragal bi. gis nga two months la war a am. I believe. I believe. Well, nag Pfizer bi nag Pfizer bi laa jël. ah Pfizer bi nga jël waaw exactly so loolu la soo lu nekk rek yàlla rek mais na ko ñu gis si yàlla rek te xam ne rek macha allah rabi ma ne ko ne àddina moom mooy loolu. waaw ma ne ko ne ah Home Hibiscus Marie Bachir nag comme dama leen ko def saa bu nekka ne ñun suñ tooga bii nii wax dëgg neex yàlla like it's a family. mu ngi mari Mary Bashir ku nek mo ci it's not all about Mary Bashir rek. Wow, man everyone is welcome man dama ibi suma loxoy understand nga même légui légui sax mu ko dama ko dee wax ci gars yi mais ne nekku na Mary Bashir knows all no. man légui légui dama de dama de ni dafa mo xam mel waxi Mary mënoon ngaa taal recipe bi nii de I go for it. dama ko try mais you know what man xawma ma international as eh, well ay eh, loolu laay wax international fu nekk la ñoo laal. so Home Kër Madi Bachir is all about fun. comme naka laa leen ko waxee rek macha allah xam nga ne lii ñuy lii tey ñuy def nii. mënoon naay ne suma waañ la rek man tey lu ma si xëjal kenn waaye dañ bugg a rek pour ñu gis ñeneen ñi ku nekk tooga dafa different ku nekk ni moo toogee pour mi man ni maa toogee ak yoonoo ak yoonooy toogee du benn te yëpp dafa comment very nice understand soo loolu la soo ku nekk bugg na ñoo xam ni moo toogee moo tax ñu defal special a ko dooree ñu ñu mel ne ah xaaral ma introduce something fun understand nga dem si kër yi nit ñi su ko defee ñuy def special guest ñoom ñu host understand nga mu neex noo bëgg a dee nit ñi ko very much so moo tax ma ne bii nii nag ma nekk season finale bii nii nga xam ne macha allah rabbi moom la ñoo tëjee tey jii nii so su ko defee suñ paree nag beneen bii ñëw moom mooy am second am season bi su ko defee nag boobu ñu tuddee ko nag joxe sa biir waañ umi xam nga ne nag duñ tëj nag te nag duñ laal nag si

yéen a ay jawli jawli yéen nyeye jogo jayo nyeye bala manje nyeye cho Chamba, del demba, chamba, bala, malach.

ndeysaan dañuy dañuy jëlee man ma jëlee gis naa la fële eh waaw ragin ah kër baayam la doonee jàmbaar ndeysaan ay ay ay ay ay ragin my son. Come here. Look at the light. Mariam, you're singing now, now. The baldi. Wow. Mariam, crying. Nina, Mariam, Jam. So I am with them. Ah. Chamba, Chamba, Chamba. macha allah Oumy. noo gisee nii kontaan naa wax dëgg neex yàlla. I'm so happy. mu ngi nii ko Adam. mu na mel. daa mel ni muy xewee rek dafa neex. lii. waaw waaw kii suñ doom la suñ doom la. ndax ak kay. sant tuuti nii la mën a mel. waaw waaw macha allah. Ada binta binta fu nekk da ngeen lekk yéen ñëpp ba mu leen ba allah na rees ak na rees ak jàmm waaye yéenay suma mag ah yéenay wax lii suma anti Eva del gis bii rek eh ki ko jëjëli ndaanaan lii macha allah

dara ni jaan yow tam nga jaay xaw ndeysaan ay reegin reeg ay ay ay rajax <laughs> maa ngi koy doesn't matter. Anyway, ah, this is what George was about. Hey, Sam.

waaye nag ma ne naa fu nekk nag ngeen leen gisaat incha allah rabbi comme naka laa leen ko waxee suñ jógee si sa biir waañ incha allah rabbi xam naa ne boobu noonu laat bu mu caam moo ko ubbi yaa ko no non mu ngi nii kon di gërëm suma mag yu baax yii nii ah dooree si. uh, anti Emma Binta ah uh, madame Jodé bu baax moomu nonu adam moomu jabi macha rabbi ah jaañ naa rek ni mo moo téye camera bi waaye ma bugu ta feñ ah ak suma special guest bu baax bu bu rafet bi. rek la ak si mota ah bu won na ñu rafet ko mi tamit di len gërem ngeen ñepp love you guys don't forget to subscribe comment like and share ah. Mwah. Mwah.